borom duma lolou da taasu luy lépp ku man ko da ngay war li nga mané Cheikh daru San jay lim man ci islam lepp def na ko bu ñu wax mbërëm islam kooku mooy Cheikh daru San jay jambar ji bi lislaam joge dafa jóg tak takk takkutu laxasaayu ni dan na jambar ja suñu tuba Cheikhul khadim Cheikhuna ahmadu Bamba khadim rasul moom da ko ter buray bi tay yoonu mu limay re re re ku daru Daaru Njaay sax Seex Daaru sa tulu nga jamba kon ko ke mo delu dan mo dan bu njëkk delu dan delu dan ba tay mo dan bo demee ma kan kan mo dan kan moo daan tey ku daan tey mbooloo mi Seex Daaru kon nu ngi doolee ñaanal jàmbaar yi jiitu di ñaan yàlla yàlla yàlla yokk seen leer waaye di ñaanal Cheikh Abdou Khadir Ndiaye yàlla ko yàlla bàyyi Ndiaye te ko maa ngi koy dëgg ci rek damay jox micro bi damay fexe ba kilifa ñoom ma jox micro bi rek waaye ñu xam ni sëñ Abdou li wolof Ndiaye leen li fonk du dool ak tey Alaaji Fallu Mbàkke baax waxan ni man ne naa galas comme rakk ju mel ni Basiiru Cheikh Abdou dia? Lalu ko nak? comme rek toll Cheikh Moussa Ndiaye mii ànd ak rek boppam yii déggal ko lool doy na ko wóolu ko lool ànd ak suñu rajo mu toog nii ci wetam di ko déglu bu ko nee waxal wax mu wax bu ko doon noppi mu noppi kooku boo neexee du ñëw Cheikh Abdou Khadir lii ko dal ñu ñaan yàlla njaay yàlla gu yoru jikkoy Baay fal di Baay fal. waaye lenn ñoru ko dul ndigal ak ub kon fa tarakala dama ko dëgg rek tey Daaru Njaay daan nañ dellu daanaat mbër mu saam daal boo ko dee war dëgg dëgg dëgg dama Daaru Njaay waaw daa dellu daan daan daanaat tey ku ñëw ku du xam ni Cheikh Ahmadou Mokhtar doomi Cheikh Moussa Mbacké yàlla fekk daa bay tool yi diw ko raadu ko déq ko dajale ko naaf ko waaye bu bëggee gàdde tàqal ko ngooñ mi kum yaakaar yéen rek la yaakaar kër yi bari na lool yoon yi lool man naa woo benn seex rek mu lu jiiku waaye dañ li yëkkër ma ci kenn kenn ku nu jabaru sama maam daaw son njaay waaye bi ngeen ñëwee taf seen yaakaaram kon yéen yàlla bu yàlla taf seen yaakaar seen njaay yi wóor na ko saaral na ko ba pro bàyyi ma kon ñu buñ xale ñu ko ñu xale lii sama liggéey tey la dimanche samay am naa émission am naa yeneen yitte sam si ndaw ma war a ma ci yoon bi dama war a première man ko mënu ma am tey fii rek fii rek li ko waral man dama ko sëb la génn ama jox ko ngir wax waaye dana ko wax ndax man ku ma teral naa ko waaye ñi ma teral bëgg na sax mënu ko reyal ak mu nekk xarum tos mi ngi leen di daaru yare bàyyi ko ndax loolu yëgal ngeen ko xarum tos mi ngi leen di am daaru yare bàyyi ko man moo leen ne yéen a mënu yéen a fees daay dëkk tëbës daay fees kon dégg nga ak a nar waa na tey may ma may ma ak saa rek may ma tànk waaye moo mu loolu gën a yoon yéen a am xam taw ma waaye nag ginnaaw bu ko may ginnaaw yoon yéen a kon bu ngeen xoolee lii بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين المكين وعلى آله وصحابته ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit bokki taalibe yi njabootu sëñ Xasan taalibe yi Xasan soppey sëñ Xasan ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Abdul Xasan te sëñ Safa Paati mi teewal ko ko ah saxel ndax bu xolam seddee du ñàkk lum la fàggul te kooku kat niru la ni lum la fàggul suñu borom defal ndax nag li doy jëm bu lii gën ñu ngi ko toog ci mbooloo ñu maa leen garanti da ngeen dem ñëw te dara leen def ah su ko bëgg leen lu réy loo ko te yaa nag garanti moom bokk sëñ Tuubaa murid bu nekk nii si nekk ci yoonu kër sëñ Tuubaa yaa ko am yàlla ko suñu borom defal barke Seex Xaadim sëñ bi nee na mi ngi ñaan bépp jullit rawatina bépp taalibe rawatina waa damaa bi suñu jaar asal nee na ñu yàlla sàmm ñu jékku ndigal jékku njël te bañ a tëre barke Seex Xaadim jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah xaaral ñu jox kàddu gi sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Fallou moom sëriñ Moustapha Mbacke mu ñaan moom sëriñ Moustapha Mbacke

moo daan bu njëkk dellu daan dellu daan ba tey moo daan boole ba tey kan moo daan ko daan tey moo daan Sëmbal Sa Njaay lii ndimbal la de wala fa adduna man lii de dëgg adduna man lii de bëgg yàlla bëgg yàlla bëgg yonent bi bëgg Sëriñ Tuubaa ñu gën a nangu moo mën lii de waaye ku ba ku jàpp dara ci adduna lii doo xamal buñ la fekk rek nga ni aywa bàyyi sa lépp yan ca ndigal la loolu de bu bàyyi adduna rek ko xam te suñ borom kat mu ki mu gën a bëgg mooy ki mënoon a jàpp adduna ba noppi bàyyi kooku la suñ borom gën a bëgg ci jaam yi ci dëgg bi kon foofu ngeen nekk yàlla na fi yàlla sax. di sagu Cheikh Modou Moustapha Mbacke maamam nekk na sondaani si Bamba waaye nekk sondaani si Cheikh Moustapha sëñ Moustapha nee na ku naka ku leen xam dégg leen rek xamul leen naw leen seen i jëf ak seen taxawaay ak seen bennoo bu rafet lool kon nee na kàddu gi moom da koy tàmbali moom Cheikh Moustapha rek waaye da koy bàyyi ak sëriñ Cheikh Mbacke foofu di mu yeggale kàddu gi ndax Mbàkke moom ku la mag rek nga jox ko ceeb ba jërëjëf kon maa sa bàyyi kàddu gi si sax nag. Ndiaw kon sëriñ bi sëriñ baa bu baax te nga xamante boo ko defalee benn mu fay la ko ker mu fay la guddi ko loo mën ko loo mënul mu fay la loo jomb non kon kenn ku ne jàpp na lépp loo xamante ni yéen a yéegu yàlla leen ko suñu borom defal. am na solo ñëpp ñëpp ñëpp jëm ñoo xam ne di teew nga fi wala nga yéene woon fee teew suñu borom li ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu boole ci ndimbal loolu ci barke Seex Xaadim moo doon tànk njëkk ak tànk yërmande ak aajo yu faj muy ñaan itam suñu borom sàmm. bismillaahi rahmaani rahiim. salaatu wa salaam ala asrafil mursaliin. yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi yéen waa sunu maam Serigne Darou Assane Serigne Ahmadou Moukhtar moom Cheikh Moustapha ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak soo sant di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol doomu Serigne Moustapha Mbacké moom Serigne Fallou moom Serigne Modou Moustapha ak Serigne Moustapha moom Serigne Cheikh Seye moom Serigne Chouaïbou ñu ngi jël kaddu bi ñu ngi jël nuyoo bi di ko teg ci seen loxol ngeen àggale ko ci loxol. sëriñ Jiili Jaay mi nga xamante ni mooy xalifa sëriñ Daal Asan ak sëriñ Moustapha Jaay mi nga xamante ni moom moo fi teewal sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal di ñaan suñu borom jotaay bii bañu doon suñu mujj jotaay ñu yàgg fee teew te lii nga xamante ni moom lañ fiy def muy liggéeyal sëriñ bi suñu borom bi ñu ko gën a mën ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal ñu ngi gën a góorgóorlu bu baax ci jaamu yàlla ak liggéey sax ci jub jëfandikoo ndigal moytu ay tere yéeneente jàmm lépp lu waay yéene sa bopp nga ko ci sa morom. ne soxlal na leen nag. Mhm. kër gu ne. mbooloo ma fa ne buñ soonoon ni yéen waa seen dooru mel ni ngeen. Mhm. buñ demee ci sariya fekk ngeen fees ca ñëwee ci xaq leen ci ngeen fees ca dell buñ ñëwee ci liggéey fekk leen ci ngeen fees ca dell buñ ñëwee ci jaam yàlla ngeen mën leen ca raw fees ca mhm. dell. dégg nga te loolu ak ak nosu gi sëñ Tuubaa loolu doonoon moom mu ñaanoon ko saa borom mu saa doonoon liggéeyam nag mooy ijtimaa mbooloo gi daje mbooloo gi te daal wax ne ngeen bennoo da ngeen noppal seen bopp noppal mhm. su ngeen bennoo sonal seen bopp sonal bis bu set su lu leen benn di xëy lu leen benn li ci lay xëy di jugont moo tax yéen da ngeen a noppal sëñ mu Moussa wallaahi noppal ngeen sëñ mu Moussa ba soñoon day ñëpp ni mel ni yéen la ni mel tënk kenn topp ku ngeen bëgg dara lépp lu loolu moom wax dëgg yàlla defal na yàlla na yàgg lool. li mu def moo tax suñ suñ yàlla defal ko lii suñ daa suñ la mu defoon caaxaan daa caaxaan suñ tubaab daa caaxaan woon la mu doon def tamit caaxaan mm-hmm. moo tax yàlla fay ko lii suñ daa suñ la mu nekkoon ñëpp xam nañ caaxaan gaay bané fa nag waaye lam nekkoon caaxaanu yoon lo tax ci digal seigne touba digal tam dëgg ak diggante bi ci seigne borom seigne daru mom mo tax seigne borom tam fay ko li ginaaw seigne daru mom li ma li seigne chambay net li ñepp dégg nañ ko seigne chambay mo ne mam Cheikh neena seigne daru mom la ko goor yalla de rawe ci cër lu lu lu lu lu koy tak tuubé di fàggu coobere saa borom hmm. ci jaamu yalla ak sel ak xaq sariya bu lolu wér re yalla aw waaw re yalla man ñaari nak mën ñoo bokk benn maqaama waaye fooraay ak tolloo nu ñu bokk waaw sëñ Daaru sëñ Tuubaa moo wax ne dañ koy wax ne ko boo boo doorum sa ginnaaw boo gëstoo wala nga taxaw rek mu agsi waaw eh? ah, loolu nag boo koy nettali dégg loo xamante ni nit ñi waaye nag baax yàgg na fi de akub cër sëñ Tuubaa kenn xamul lu mu doon hmm. ñu baax ñi nungu dogal bi yàlla ñëpp ñëw wuyu si sëñ Daaru yi kenn waaw sëñ Daaru day sëñ Tuubaa nee na la sukk jébbalu waxuma sopp waaye kooku xam rek àjjana nga jëm ñu ne ah mbàcc kon xanaa kenn dem sawra mun a ah kay wax nañu ñi nga xam ne doxee ni Ibra Fall néewul ñi doxee ni Ibra Fall néewul loolu moom suñ ceex sëñ si laa ko nettali ba la suñ tooyee benn ji dégg mhm.